gannaaw nuyoo bi wax ji du gudd xanaa ak fàttali rek loo xam ne kenn fàttewu ko ngi ndigal loo xam ni dafa jóge woon ci sunu kilifa bopp di sunu sëñ di sëñ Saaliw am lu mu bëggoon ci dëkk bi nesiroon ko bëggoon ko ko ci jàppale yàlla dogal mu wàcc bi liggéey bi fi Alaaji Baara nekkee nu nekkoon ca miraas ma ba jotuñu koo taxawal waaye nag bi sëñ Sidi Moxtaar toogee ñu di waxtaan ci ak moom moo wax ma yéene ko yéene ko ñetti yoon ci laa woote woon am ndaje ci kër sëñ Touba woo bokk yëpp ñu taxawal lii bañ foo jógee ci suba sa ma dem Poroxaan fekk fa sëñ Muntaxa ne ko sëñ Basiru de dafa lëggéey sëñ Touba ci anam ci xam-xam lëggeel ko ci pas-pas lëggeel ko ci xel mu rafet nu bëgg nag mbooloo mi doxe noonu moo tax mu ñëw ci yow fii sàkku si yow ñaan nga nekk suñu responsable moral mu nangul na ko li na ko Cheikh Abdou ñu koy doxal li tax nag ma sant ci yàlla mooy bi ma fa bee jàjj yi war koo jox sëñ bés mi mu tudd am basiru di doomi sëñ Sidi Moxtaar moom nga xam ne sëtu sëñ Baara ba noppi sëtu sëñ basiru kon damay rafet njorto ci mbir mi am ci xel mu dal bis bii ñu ko yeesale itam mooy 5 septembre bi nga xam ne fi leen jëlee woon sëñ Touba yóbbu ko ngir bañ gum bañoon ak woote gum woote woon ak tubaab yi ak wéetal gum wéetaloon suñu borom te noonu ci leef moom la ñuy dox kon nag bu fekkee dafa daje dañ ci sant yàlla bu baax 1895 boobu itam bi mu fi jógee ci la sëñ Bassirou gane àdduna muy mbég te sëñ bi wax na sax moom waxoon na ak njabootam li tàmbali sëñ Moudou Moussa ba ci suuf ñëpp ay wàllu lañ waaye nag ci biir géej gi la ko sëñ suñu borom xamal ne ko basranil basir bu baax na ibnil basir bi ànd la moo doon li say kon min akbari awliya illah kon sëñ boo tuddee basiru loolu dañ ci ci même tombé gi dañ ci dañ ci rafet njor kon nag ñuy ñaan taalibe bi yëpp ak bokk yëpp ak xarit yëpp ak képp lu baax ñor ak képp koo xam ne dëgg ñor na la nga jàppale sëñ bi si liggéey bu diis bii nga xam ne mooy sàmm ndono sëñ Tuubaa yi mooy sàmm patrimoine sëñ Tuubaa te mooy li ko gën a ñor ci kaw suuf du ay tabax waaye li ko gën a ñor mooy defar nit ak sàmm jikko ba mën nekk responsable mën a nekk nit ku yiw nit kuy defaree bu suñuy wajur sàmmul woon li kon fii mu àgg du fi àgg waaye ñoom dañoo topp roy seen baay ba doon sëñ sëñ Tuubaa comme ñoom koo bëgg doon nag da koy roy rek bu yàggee nga doon moom kon sëñ Bas li ma yenn woon tam diis ci man yenn ko naa ko teg sa say loxo yàlla na yàlla eh, woyofalal yan bi te defal la ci nag yàgg ñu ko àndal ñëpp. ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci biir réew ak ci bitim réew di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tey jii ñoo ngi ci pàkk bu am solo pàkk bu rëy waaye ci kër sëriñ Hamzatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad eh, sëriñ Hamzatu nag dégg ngeen fi mu daanale day koo xamee ni sëriñ bi rek moo ko ñor ci taalibe yi itam ci lay dox lépp loo xamee ni lu sagal diine la ma nga ca waaye lépp luy sagal Cheikhul Xaddim ma nga ca gis nga ko ni mu toppe woon way juróom yooyu Cheikh Saliou Mbacké waaye magam ya El Hadji Mahamadou Lamine Mbacké moom Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Sidi Mokhtar ba ci Cheikh Mahamadul Muntaqa di ñaan sun borom yàggal ko fi te ànd ak wér euh, ci kuréel gi nga xamee ni nag wala daaira bi muy euh, junju mi ngi tudd xuddaamul xaddiim xuddaamul xaddim na ku dégg tuur wi xam ni firi na lépp mbaa leer na am mbooloo la moo xame ni eh, ci ñi mu composé bari nañ ay woroomi xam-xam ay kilifa nekk ci biir lu ko tax a jóg mooy sàmm ndonal cheikhul xaddim ci lépp loo xamee ni jëm na ci xam-xam jëm na ci dëkk bi ak lépp lu laal cheikhul xaddim ba tax na bis ni ko tey juróomi fan ci weeru septembre deux mille vingt dëppoo gi itam fukki fan ak juróom benn ci weeru tam xarit mille quatre cent quarante deux bis ne que tey ñoo ngi yëkkati suñ kàddu wax ni mbooloo moo mii mi ngi fi woon naka jekk waaye jugaat na tey salaat ay jéegoom ngir euh, di bàyyi xel ci képp koo xamee ni am na jenn wax ju muy waxati mel ni luy xawa xotti wor ma ci Touba wala ci Serigne Touba ba ci eh, ci ci njànginu dëkk bi ak doxalinu dëkk bi incha allah am nañ ndigal ci Serigne Hamzatu Mbacke mu jële ko eh, ci Cheikh Mahamadul Muntaqa muy association boo xamee ni itam bal na ci mboolem côté yépp incha allah ñu fas yéene jóg nag taxawal dox lépp loo xamee ni sàmm ko muy ndolo Cheikhul Khadim ku dégg sama kàddu fii ci biir réew ak ci bitim réew na bàyyi xel bu baax a baax ci mbooloo mi ci num ci mën a ñëwee ak num ci mën a jàppe dara taxu koo jóg lu dul liggéeyal Cheikhul Xadim ci wàllu xam-xam waaye itam ci lépp loo xamee ni mi ngi xotti war ma Cheikhul Xadim kon xam naa du jar ñuy guddal li xam satu Mbakke wax leer na waaye dañ doon xamle rek ak di wax ni mbooloo moomu jóg na incha allah da ngeen ci amaat yeneen i jataay yu gën a leer ngir am mbooloo la moo xamee ni ubbi na ay buntam woo na ñépp ngir liggéey sol xadim te liggéey sol xadim rek moom mooy li am solo loolu moo ñu fi bàyyi te itam moo ñu tënk kon nag ñoo ngi woo mboole mbokki jullit yépp mboole mbokki taalibe bi yépp képp koo xamee ni bëggug Cheikhul Xadim sa mbëgg la ñoo ngi lay woo loolu ngir ñu ànd defendre waaye euh, xeex waaye itam taxawal aw waxin la taxawal li nga xamee ni mooy njàngaleem Cheikhul Xadim te bu ñëpp àndandoon def ko woon a sayidul mutlaq àdduna bépp dana daal di yomb kon nag ñoo ngi jégalu ci bu baax a baax euh, ci bépp jamaj boo xamee ni am na ci kàddu yi euh, ci yéen rek la ñuy waxee waaye di santaat bu baax a baax sëñ Hamzatu ak ñi nga xamee ni ñoom lañ àndal ñëpp di mbooloo mu bare bari bari bari ba waxoon nañ ji itam ci ñu lim ci ñenn ñi Euh, ci ginnaaw sëriñ Hamzatu euh, sëriñ Fallou Fall Mbawor mi ngi fi waaye sëriñ Ngane messere fay itam sëriñ Mat Diop Diawbe yore wàllu sécurité bi waaye sëriñ Moustapha messere ak ñeneen ak ñeneen ci ay kilifa euh, kon nag ci mbooloo maa ngi noonu di ko yëgle di ci woo ñëpp.